بايولان تي في منار العلوم ومنبع الفهوم إلى جميع أنحاء العالم ñi seetaan si TV te abonné go pour nga abonné foofu cloche bu rouge bi nekk sa bouton s'abonné bi foofu ngay laal pour mu abonné fiñ bind tuut bi nii mu mel ni sonnerie foofu ngay laal vidéo biñ dugal nga mën ko jot bul fàtte tamit laal sem wuy si woote Mawlaaya Cheikh Abdou Barham waaye ci buntab Cheikh Awal Baye ñu bëgg a xam rek ñëw daaw bi ak ñëw reen bi lan moo ci différence bi parce que am na luñ miinoon loo xam ni dañ ko fi doon fekk muy jëmmi Cheikh Abdou Barhama doon ñëw di saafuwante ak moom ren loolu amul zahiran fekkuñ ko fi tey loolu lan la def dafa yokk wala dafa wàññi. waaw alhamdulilah euh, ñu ngi gërëmaal ñëpp di gërëm waa Taïba Sané bu baax di wax ne pour man ñëw ren bi dafa yokk ndax euh, Cheikh Abdou Barhama jógu fi te doomu gaynde gaynde rek lay doon. te la bàyyi waxoon rek wa makkaan yi fi zamaani wa zamaani fi makkaan yi kon pour man man Cheikh Abdou Barham jógewu fi moo tax nan daan ñëwee ren leen gën a mobiliser wu soo xoolee ren sax nit ñëwee gàmmu Kaolack ren leen gën a mobiliser wu gàmmu Taïba Sané ren leen gën a mobiliser wu parce que xam nañ ne suñ ñëwee jëmmi Cheikh Abdou Barham zaayiram dem na mais jëmmi baatinam mi ngi fi te soo xoolee rek da koy gis moo tax ci loolu dañ cee kontaan bu baax a baax a baax ñun fi meloon daal ren ren sax lañ gën a xàppi ren lañ gën a normal ren lañ gën a ngi sant suñu bopp baax a baax a baax kon Cheikh Abdou Barham jógewu fi ndax doomi gaynde gaynde rek lay doon macha allah. kii macha allah doomi gaynde gaynde lay doon dégg ngeen li nga xam ne moom la Cheikh Commando wax li ñu bëgg a xam rek moom mooy. Euh, ban yëg-yëg ngeen di am bu ngeen ñëwee fii ci dëkk bi nga xam ni Cheikh Abdou Barham moo ko fàkkal boppam sancal ko boppam muy Taïba Sané. waaw yëg-yëg bi ñuy am mooy yëg-yëgu bànneex parce que tey képp koo xam ne mosoo ñëw Taïba Sané soo ñëwee li ngay njëkk bu laaj mooy sëriñ bi lu fii. loolu kep ko xamne rek mbokk taalibe yi nga xamne mu xadam yi ñep ku fi ñëw da nga nan wa señ bi lu muy wut fi mais lan la fi wut yalla ñew euh, wax deug yalla dundal si tayba sare don na dekk bo xam don na pak bo xam soo fu da nga am yeg yegu yalla da ngay xam ne fii borom jamono fay tok te loolu sante yalla la baax a baax heure buñ ñu fi ñëwee dañuy léegi rek ma ngi toñ mbokk taalibe ne tayba sare dafa neex parce que yalla sa xol day feex da yalla amu do am ben problème da ngay gis ne taalib ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ci yarab cheikh abdou baram kon suñu ñëw fi dañ koy yàkkamti ndax at baat la suñu sañoon mi am ñaari yoon ci at mi mais at baat la mais heure bu ñu fi fi suñu bopp wax dëgg yàlla loolu sant yàlla kese la macha allah lan ngay wax mbokki ci topp ki nga xamante ni mooy suñu xalifa tey mooy suñu buntu ci cheikh abdou baram muy mawlaaya cheikh awal baye waaw li may wax mbokk taalib rek macha allah tey baye awal baye mooy liggéey fayeeku ndax cheikh abdou baram di selum dara kon tey ñu desee rek Baye Eul mooy ñu liggéey xitmaal ko mooy ñu ñëpp ñu doon ay jaam topp Baye Eul Baye xitmaal ko ci biir xitmaal ko ci biti lu mu bëgg ñu taxaw ci li mu bañ ñu moytu ko bar pare nag ñu bokk ndey ak baay ndax damay faral ne ku Cheikh Abdou Barham yar jikko yonent rek nga war a am way naka la xalaa xulxul azim te loolu wax dëgg yàlla moo nekk fii tey ba saane kon topp ak Cheikh Abdou Barham yëpp li ma leen wax rek mooy ñëpp ñu bootu ci ginnaaw suñu xalifa Baye Seydi Mawlaya Baye Eul Baye liggéeyal ko ñu doon ay gumba ay tëx ay lu topp ko lu mu wax la ñu wax lu mu wax loo ko ñu macha allah. macha allah ñu lay wax ne nag yaa ngi fii ci Baye Willane TV di wax ak mboolem taalibe yi muy site internet wala seen YouTube boo xam ni li leen tax a jóg rek mooy tasaare mbiram Cheikh Abdou Barhama liggéeyal ko tey lan nga leen wax. macha allah di di am kontaan te mbégte baax di wax ne seen télé bi ca kaw la jëm waaw ndax Cheikh Abdou Barhama yéen ñi dem ba tuddee ko loolu Baye Baye Willane dien len leen fu sore sore sore te ñing leen ñaanal leen ay ndaw ngeen yalla na sirru cheikh abdou baram ci xalak ci maqam yalla na dox ci ku ne bo mën leen seen fu ne te yalla bu kenn dam yalla bu leen kenn mën dara ci barke yonent yalla mo man fu ñi deg tele yu mag ya yalla ngeen deg ba egg fofu eh, ci barke yonent yalla ci barke cheikh abdou baram moy say cadeau yi wa sama cadeau yi muju moy ñi ngi am kontaan ak mbégte bu baax di gërëm benen yon cheikh abdou baram ci teraange mais di gërëm tamit baye oul baye suñu serigne suñu khalifa yo xamne amuñu fayam ñun ñëpp rek nañu manko nañ ko bëgg nañ ko liggéeyal parce que lool rek fi def benn maqam ma fi des tey muy xitma te maa ngi ciy woo sa mbokk wo ci mbokk talib yëpp nañ xitma bàyyeewal lu mu bëgg lañ bëgg lu mu nekk lu ci salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah kooku mooy cheikh commando baye di muxaddam nekk fële ca thiès di taalibeeb Cheikh Abdou Barhama di liggéey liggéey bu am solo di ngeen kàddu yi nga xamante moom la dénkaane kon ñun ñëpp nañ ci wuyu bu fekkee ne rek bëgg nañoo am ndam ci li nga xam ne moom la ñuy woote woo di leen wax ne rek yéen a ngi ànd ak Baye Willane fii ci Taïba Sany Gambia asalaamaaleykum xam ne yéen saxoo di seen seen seen YouTube Baye Willane TV comme ni leen ko waxee rek tey la euh, neuf janvier 2021 ñu ngi fii ci Gambie ci Gambie Taïba Sany Euh, ànd ci nag ak moo la Ewal Baye Al Khalifa di ko ñaanal yàlla fenn gudd ànd bu wér waaye ci loolu nag ñu ngi taxawal benn groupe fii ñu tuddee leen Aljannay Fayda Saali muy euh, groupe boo xam ni ay euh, mbokki taalibe yu dajaloo la ngir liggéeyal seen sëriñ waaye ngir dundal ki nga xamante ni mooy Fayda Saali Gambia ñu tuddee seen bopp Aljannay Fayda waaye nag ñu ay band yu baax ñu ay xéewal bu baax di ko indi fii ñu ci Fayda Saali sa gàmm Euh, bu ma juumee ñu ngi ko tàmbali ni ki daaw euh, euh, waaye bu ngeen déggee sëriñ bi gàmm gi mu mujjee def rek rek bu na si liñ tëjee ñaanal leen yàlla kontaan ci ñoom ci njiital bi nga xamante ni moom mooy Ramatu Jaw dëkk foofu ci Kaffrine. ah di wax ne Baye Sewa dégg mooy dañoo nekk ci waa ñu fidye mi membre fidye laa ñu bokk ci waa ñu ñuy dem di dem di dem nga xamante ne xaal bi tàng na Abou Ndiaye Aziz ak ak Ousseynou Adama ñu nekk ci nekk ci nekk ci projet waa fi ñu tuddee ko àjjana loolu moo andi pour àjjana day basaani bi après nag ñu yóbbu ko ci sëriñ bi mu rafetlu ko lool lool lool sax ñaanee ñu ci yàlla te ba tey incha allah ñu ci gis suñu bopp waaw. non loolu dañ naan alhamdulilah gis nañ ci yokkute bu baax a baax a baax a baax parce que daaw bu ñuy ñëw defe naa ne benn keesu banaana lañ amoon ak benn keesu mandiri te ren moom macha allah andi nañ suñu sow mu doy andi lépp dañ naan alhamdulilah jërëjëf chef du baraam. waaw dégg ngeen ko daaw la leen ko commencé chef du baraam ñaanal leen ci. ren ñu ñëw gis yokkute boo xamante ni mën nañu wax ne 100 pour cent la loolu mooy ànd ak Mawlaaya Cheikh Abdou Barham amul tànk ginnaaw tànk kanam la rek waxtu wu nekk man saaxiban yataqaddam wala yataaxar falillaahi alhamdu wala faqar loolu la ñu waxoon ku ànd ak man damay jiitu rek a des ginnaaw kon yàlla buñ buñ di ànd ak Cheikh Abdou Barham yàlla na sax. waaw ñu ngi wax jërëjëfee Cheikh Abdou Barham jërëjëfee Cheikh Abdou Barham waaw bark leeral kanamam barkel gannaaw wa ñu ngi sant ñep waaw ñi ñoy wa groupe àjjana tay ba groupe bi ñu ngi ko formé ngi am légui ñaari at wa groupe bi nak ñu ko formé moy li dañ doon xidma ci wañ bi fi ak wa Fidia xaal bi moo ñu poussé bañ formé ko groupe ma dal karamara la karama ak yalla mo ci fay parce que xidme nañ bañ xidba xaal bi jog jël benn bërëb fàkk ko turu ajara tey ba foofu la ñu jógee def mbaar lañ fa commencé woon def mbaar ba après xidma après ngoon gi ñu bi foofu la jógee léegi gàmm gi jeexee dem bii dina wax ko sëriñ bi président bi kontaan bu baax ñaanal ñu yàlla foofu la jógee léegi nag loolu mooy ñamu na xam mooy benn daayira la wala dafa am ay daayira yu composé rek wala daal. waaw lii du daayira parce que lii mën naa ne c'est international ñëpp bokk nañu daayira. Thiès mu ngi si daayira Seerul Xalbi mu ngi si Fidiya mu ngi si waa Kàmmi mu ngi si daa boo leen ba la rek xaal yee daje rek ñu formé kii fu waay jógee boo ñëwee mën nga si bokk pour xidmal sëriñ bi la rek waaw mais du daay ñëw ngeen ñëw saa yi ànd ren ngeen ñëw 2021 fekk leen tey loolu am na yokk wala am na wàññi ci yéen. waaw métti na trop nag métti na trop suñ sa ñoom fekk ko fi mais xëy na yàlla loolu la dogal. waaw jëmm yi wér nañ ruu yëpp wér nañ mais xanaa ñaanal ko yàlla rek parce que si Abdou Barhama jóge wu. waaw dañ koy ñaanal yàlla rek ñaanal xalifa bi bàyyi woon yal na yàlla may ko am gudd yal na ko am bët ak yu ko neex waaw. barke Baye Niass ah fii moom suñu bébé sori na de parce que sëriñ bi ñaan na ko te incha allah dina dem sëriñ bi lépp loo xam ne nii ñaan na ko rek ñu dem la waaw dañ dem dem baal ba gàmmu gi tey àjjee tey ba taal nu mën di toll ñu indi fi ay camion fruits ay lépp ñoo xam ne ñoo koy seet. waaw. incha allah. dañ ko yaatal pour ñëpp amul frontière ku bëgg a bokk rek jokkoo ak Ramatu mu ngi ñuy taxaw waaw mu dugal la si groupe bi am nga whatsapp après moom dina la wax ci commission yi mu ngi demee yëpp. waaw ay quatre membres wala. waaw ñu koy programme nag mais dafa doon dina am incha allah. baax na jërëjëf ñu ngi nga waxee ñi nga xam ne ñooy abonné Babacar doon ay taalibe yoo xam ne ñoo formé wu rek te ñoo ko waxee xëy na ba ci biir Cheikh Abdou Barhama wax leen loolu dañu faral di wax ne pël yi boo ci nekkee di liggéey da ngay toog muy sànni ay message am li mu jox na jàppal ni jox na ko keneen boo ko defee rek da tuuti sa morom def ko ñoom nag bu leen ko pël yi message rek fekk na ñuy connecté wu am connexion ñu connecté wu moo tax ba yow ñu ngi ko yooyu euh, ñu ngi kontaan ci ñoom macha allah di leen ñaanal yàlla taw taw taw si fépp fu ngeen bëgg a yegg rek yàlla na ngeen ko yegg ci barki Baye Niass asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ bi dégg nga waaye ñu ngi si jàmm euh, bi naan la. man ko màqamee si Thierno Diouf. Thierno Diouf ñu ngi leen di ziar di euh, gis ne yéen a ngi fii ci Gambie ci dëkk bi wax Taïba Sani muy dëkk Mawlana Cheikh waaye ci gàmmu sa Taïba Sani 2021 ñu gis ne nag yéen yéen a féetee li nga xamante ni moom mooy wàllum root ci robinet bi yéen yéenay bantaayal. ñu noo nekk fii daanaka bu Taïba. Ibu Taïba euh, féetoo wàllum ndox mi wala ak yeneen liggéey waaw am nañu nekk si wàllu ndox mi si suñu suy bëccëg gi ni suñ demee ba guddi gi suñu sabar bi dañuy dugg si biir baas bi nekk si écrit foofu ñu leen di laaj ban yokkute ngeen gis leen ci gàmm waaw gàmm bi am nañ si yokkute bu baax a baax a baax parce que nit ñi gën nañu ñu ngi gis daal baax daal yaakaar naa ne ñun manqué wuñ dara lépp loo xamante ni luñ foogoon dañ ko manqué daal manqué wuñ ko am nañ si daal sant bu baax. lan ngeen gis ci xidmaal Cheikh Abdou Barhama ba waxtu bu nekk rek ngeen di jaayante moom bu ngeen toog bu ngeen toll rek yéen a ngi jaayante daal maam lan lan ngeen si gis. waaw si gis ku si nekk yow soo tëjoo sa néeg nga seetlu baax yow loo ko defal da nga toog doo ko mos a jëloon si kaw moo tax daal fayam amul guddi amul ngoon heure bu ñu sant dañuy def ma ngi dëkk bi bu ñu sant dañuy def. dem bi mu dem. nga xam ne ren ñëw nañ fekkuñ ko fi zaayaram laa wax ñi euh, mii doon di ñëw di ko fi fekk ci jëmmam moom Cheikh Abdou ak xaalam euh, ren nag ñëw nañ fekk fi jëmmam waaye xam nañ ne xaalam ak siroom ak xaalam yëpp loolu lan la yokk ci yéen lan la wàññi ci wàññiwul si ñun dara daf ñuy gën a yokk parce que yaakaar naa ne lu kii waxoon rek bay taal ci guy bàyyi lu mu ñu waxoon Cheikh Ibrahima jamono bu fee nekk dañ doon naafila waaye léegi ñu ngi si farata saa yi dañu si farata si lañ nekk te Cheikh Ibrahima daal demam daal dem si saa yi waaye demul si baat yi Cheikh waxoon nañu ko mën na euh, dee suñu xol yi waaye lu dee suñu dund yi te yaakaar naa ne Cheikh Ibrahima am ko si ñun ku si nekk am na loolu Cheikh Ibrahima defal nga wax ko ak nga ñàkk kaaw moo tax daal jooy nañ ko waaye jooyu ko ñu bàyyi la Cheikh Baye woon jërëjëf sëñ bi ñu ngi kontaan si bu baax comme ni ngeen ko waxee rek ñu ngi fii ci Taïba Sany Gambia ci gàmmu 2021 euh, nekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Fidiyaan nekk fii ci Taïba féetoo wàllum root yi muy ay xale yoo xam ne ñu nangoo liggéeyal Cheikh Abdou Barhama la ñu ci sax leen te léegi li mu wax nga gis si yokkute rek moo tax waxtu nekk ñu ciy jaayante kon yéen a ngi ànd ak Baye Willane TV ba tey wasalaamaaleykum wa rahmatullah